yëngal gësëm gante rakin rakin jàmper jàmper jàmper way lamb way jàmper yëngal gësëm magar loolu boy loolu sama yoon wax amaana combat bi daa mel da cee liggéey physique. papa daa mel ni ku xaw a soppeeku ci combat bi. waaw. daa mel ni ah. inspecteur. combat bu mag a ngi nii ñaari ndaanaan. ñaar ñu mën a bëre ba bis maa ngi lay siyaare moom maa ngi lay delloo siyaar di bëggee gaayam di bëggee eh, waa Cambérène gi ma di ñaanal sama papa Mbaye Kane fi mu tëdd yàlla suuf sedd si kawam yàlla na àjjana yi doon na fulaayam di bëggee sama gaay ma àndal ñëpp di bëggee waa stade bi ñëpp rawatina waa Cambérène bi ma jógee Cambérène sama diwaan maa ngi leen woo si combat bi incha allah rek nañ ñëw jàppale seen doom seen xarit siyaare Papa Boy maa ngi nuyu mbooloo mu jikkoog yëpp di la face la caméra waaw di wax ginnaaw ma sant yàlla julli sëriñ bi di sant sumay ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp di nuyu sama sëriñ Serigne Abdou Karim Mbacke naaru maam Awa Faye di nuyu suma yaay soxna May di nuyu waa Touba yëpp di nuyu Mouride Mbaye maa koy nuyu bu baax du nuyu waa Touba yëpp. di nuyu tamit xalifa généraux yi nga xam ne nekk si àdduna bi yëpp nuyu waa Laayeen waa bu waa Tiwaawan di sant tey kilifa yi nga xam ci réew yëpp di jégalu tamit Sénégal yëpp parce làmb yombul làmb dafa metti bu xasee ba mun naa ne ay vingt ans yu si làmb. waaye nañu comprendre ñëpp xam nañu ay jeunes lañ te ay ndaw lañ te dañuy daan suñu doole jéemuñu def lenn lu bon jéemuñu def lenn lu ñaaw parce que kenn ku si nekk soo amee sa kër nga yóbbu di ñaanal sama papa yàlla xaree ko àjjana te yeexe ñu di ñaanal suma yaay yàlla xaree ko àjjana te yeexe ñu ak mboolem sama xarit yi nga xam ne dañ ma manqué si combat bi ñooñu ñu si doon ñaanal si si ñoo bu bu yàlla defee leen jàmm bañ dellu si waat ñu xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi di ñaanal Amet Baro suñu borom may ko gudd fan ak wér fëgg boppam ba mën a doxiwaat ay soxlaam di ñaanal suma grand commando di sant tamit ñi nga xam ne bu ma duggee si làmb ba léegi bàyyiwuñ benn yoon découragé wuñ di jàpp parce dañoo xam ki ñu àndal suma làmb yombul mais man jàmbaar laa bu tax ma nekk jàmbaar mais du ma découragé parce que àdduna lépp loo bëgg loolu rek da nga ciy dem ba jeex tàkk yàlla ànd naa jàmm boo xam ne day gëm li mu doon te man jaamu yàlla kepp laa bu xeebu di sant tamit sama kër samay jabar di sant samay mag di sant samay dëkkandoo parce que Modou man dama dëkk si gox boo xam ne su ma jugee kilifa yeeg mag ñeeg maire yeeg paa yeeg ñëppay jug di ma dooleel di ma jàppale. xam nga kii. waaw doomu aadama la mbër la champion la boobu bis mi bu caaxaan jeexee dëgg des moo jiitu si làmb def lu nekk si làmb ñu nangul ko ko. bëree cinquième combat am. yaakaar naa nag télé moom bi muy bëree cinquième combat am boobu yàlla dafa dogal ma nekk ci ay tolof tolof nekk ci ay natt nekk cent moom li ma wax nag moom ko gën a xam moom waaye man bi may nangu sama champion boobu ñëwaguma ma bëri arène barki alxuraanul karim bu fekkee li ma wax amul yàlla ma daan moom bi may nangu sama champion naan ma mbër kaamil nga bu la yàlla dimbalee nekk nii mën ngaa daan ku nekk boobu ñëwaguma si bëre dóor alxuraan waaw Modou Mbaye xam naa ko bu baax a baax a baax a baax xam naa ko bu baax. li mu wax ci yow yaa ko wax. waaw maa ngi man du ma déggoo bépp doomu aadama ma dajanteel nga nekk mbër dama lay encouragé wax li nekk si yow wax sa mbaax waay du wàññi sa mbaax dara man maa ngi lay Papa Boy Djiné champion nga gëmal sa bopp. lamb amul découragé bër bu si mënti nekk da ngay dem ba jeex man sama adversaire ak adversaire bi keneen laa si yamale ku ma si dajanteel damay saafanteeg yow jàmmasanteeg yow conseil la boo ma conseillé ma jël nag waaw yokk si li ma am. mais seen combat yooyu ñaar xam ngeen ni yéen a ngi bëre combat bu metti waaw moo dama mu nekk loo xam ne mooy li ma wax rek man du ma waxantu booy xoola non xaar leen nag doo leen fi taxaw di waaraate doo leen fi taxaw di waarante combat la yow kii non yi ngeen di def da ngeen nax wax leen ci làmb ji te ngeen wëlbatiku jàkkaarloo caméra bi da ngay xeex ak kii wala xeexoog moom parce que arbitre bu sifflé da ngay dem bu jéegul ñu fi am sant lépp xam nañu ne ay ndaw lañ ndaw lañ bu si yaram tàngee il faut ñu neexal waaye ñu ngi jéglu presse bi yëpp di jéglu ñuy seetaan xam ne ñun ay xale lañ xamuñu dara mënuñu dara di jéglu senegal yëpp xam na làmb moo laaj loolu làmb ji moo demee noonu. ak na sifflé sa diggante kii. Bébé Bismi man bi ma waxoon du man taaliba Cheikh Ibrahima Fall laa si yëpp yu yàlla ak mbaaxam bu fekkee suñ borom may na wér incha allahu rabbi moo ko wér ba mu ñëw le 10 incha allah su fekkee dina ñëw laa wax si kàttanu yàlla le 10 allahu rabi fu mu taxaw ci kàttanu yàlla naa koy fekk ñu xeex bëre ma daan ko incha allahu rabi. mu ne dèjà bu dee di ñëw foo ne rek dana la fekk. si kàttanu yàlla sunu borom incha allahu rabi su ma yàlla wooyee ma wér damay teew sàtt damay bëri dama koy daal mais moom mooy lenn rek laa bëgg a laaj Sénégal yëpp yéen laay laaj Papa Boy Djiné kan la daan laay laaj ba pare avant tout daan. man baanu ma kenn baanu kenn incha allah rabbi waaye la di si kàttanu yàlla ak mbaaxam daan nga ñëpp bëri nga ak ay champion waaye si kàttanu yàlla dama lay duma dama lay daan incha allah moo lu saxal nit yomb la waaye mu sàq bi moo jafe kii yaa saxal boobu léegi nangul sàq bi balaa moo sàq bi nag ma daje ŋaami incha loo koy jox si moom daji ŋaam wala. yombal laay jël dama koy bàcc bopp on la rek manu may nañ bàyyi di naxante ba bis bi day waxante nii rek di mbalak nii di tàññewu tey kii bari ci Seydina Mohamed lamba ji du ma nga arrière benn pas fu mu fekk naa ko timbal ba bis bi du ma yaa wax. nee na du la arrière de un pas. ma ne yow yaa wax. moom moo ko sama làmb musuma arrière amul mbër bi ma yëpp maa leen song. waaw soo arrière day gën a gaaw incha allah. man amul góor yàlla buy jàkkaarloog man may arrière ak noo mënti toll noo noo mënti toll dama lay attaqué dama lay daan. naa la làmb dafa neex. làmb dafa neex moo tax ngaa koy sax di tambambaalu mi si stade bi def seen fen. ah lam moo neex. a bi yow yaay ngaaga si bopp fii a amu fi ñëpp ay champion la a amu fi bu ngaaga dama ne. lamb moo neex bul wax ay champion ñëwuñu si champion yi maa yooyu ñooy signé bu ñu wàllu kaa ñu soog ko fu mu am ñeme amatu fa tëjee sa gémmañ gi moo gën. boobu tel kaay woon da ngay lamb moo neex ba ngaaka yi doxantu fii nii li benn ngaaka doxantu ngaaka day a six wax. on a six mois ñuy wax nañ sant ñu gërëm le bis eh eh Modou Mbaye man damay wax lamba ji di sax si may wax après lamba may continuer di wax te damay duggaat géej waay continuer waat di fa wax wax nee na day nee na mënoo continuer wax da nga jàkkaarloog télé eh, eh, leen di ñaan ñu leen di ñaanal victoire waaw woote waale Boy Niang maa ngi seq maa koy ñaanal ndam parce suñu garant la ñu koy ñaanal baax baax ba sëñ Touba di ñaanal Baye Mandiaye suma rakk la suma waay la suma doomu ndey la di ñaanal Aliou Sow numéro 2 suñu borom suturaal ko parce a niróole muy lan muy cat kenn mënuñu si làmb ñu koy ñaanal suñu borom suturaal ko bu baax a baax a baax li ma wax ni sama xol laa ko tuddee Aliou Sow numéro 2 yàlla na ko yàlla suturaal may ko ndam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci doolay Serigne Abdou Karim Mbacké maa ngi koy ñaanal benn bis bi li ma koy wax bariwul bu ma war a bàyyiwul koy ñaanal yàlla suñu borom indi ko ba esat incha allah rabbi le 10. man ci kàttanu yàlla damay xeex du ma xeex ku affronté Nokia dox si kaw mu génn ci saako yi su ma lee dina affronté Bébé Bismi war nañu ko sax mën a gëm li ma koy ñaanal mooy suñu borom may ko jàmm ba ñëw esat si kàttanu yàlla ak bu ñëwee dinaa ñëw su ñëwul dinaa ñëw bu bëree ma bëri su bëriwul dinaa bëri. yow kii combat moom nagu yaa dafa taxaw di xaar di xaar di xaar di xaar ba la dajeer ñoom noonu la ñu mel waa Guèye dañuy xaar rek ngir yàlla bu ñu di xaar man sama combat musul yàgg balu jége waaye laa mosa bëre mu yàgg damaa ko daan damaytul mu yàgg boobu ni ko doon ma bëgg a bëri waa Guèye daal ngir yàlla fajal gàtt boobu ngir yàlla fajal gàtt boobu Alioune Seck ñëwal waaw waaw Papa Boy Djiné moom nee na li muy ñaan mooy mi ñëw rek. Alaaji Ande waay waaw di woo papa di woo sama papa Mbaye Thiaw di woo Thiaw Laye Diouf Sarr di woo Mbaye Kane xam di woo Libaas Samba di woo Libaas Fall. di woo Ablaye Faye Poro di woo Niang Poro ñoom ñëpp maa ngi leen di woo sama waa koñ lanu xam nga comme dap rek daf leen ngeen doon def ngeen jàppale ma comme dap li ngeen waxoon ngeen def ko xam nga xaalis bi ñëw ma jàppale waa ji daan ko. wooteel. Mourou Mbaye man Mambo Diaw. Eh, kaay kaay kaay ba bis mi kaay taxaw nii. Mambo Diaw laay woo si combat bi. bailleur bu mag bi ah. yow daaw si man 5 millions. di sant suma jabar man suma gay jabar kese laay sant si combat bi suma jabar moom man lépp moom ko def suma combat su taxawee du dul amati jàmm bépp autorité boo xam ne yaa ngi koy jàppale à cause de moom ngir sama jëmm ji rek maa ngi lay ñaanal suñu borom defal la jàmm maa ngi koy sant bu baax sama jabar léegi alliance soxor kele maa ngi koy sant bu baax léegi maa ngi koy sant bu baax encore une fois combat bi combat am la làmb ji may bëri nag li si xew moo bëri Modou Mbaye Modou Mbaye làmb ji li si xew dafa bëri te di ñaanal suñu papa yàlla xaree ko àjjana combat bi dama ko jël mardi astafura lundi mardi mi ngi suñu papa génn àdduna barke Sëñ ko ma si ginnaaw ay at di sant tamit suñu papa Malick Thiandoum du ma taay si moom maa koy sant di ko gërëm bu baax Malick Thiandoum billaahi wallaahi wal kitaabi su ma dugul ba yóbbu ko mag su ma deewee man du ma du ma yàlla bu ma dem sax ajana maa ni Thiandoum maa ngi sant di ko gërëm ndax su ma yàlla dimbalee bu ma ñëw di taxaw fii di yëngatuwaat ci dara rek à moom moo tax ginnaaw yàlla ak bi maa ngi koy sant maa ngi sant maa ngi sant sama papa Malick Thiandoum aw ma fayoo maa ngi koy sant bu baax di sant waa Guédiawaye yëpp nag di woo waa Guédiawaye béy di baax maa ngi koy woo si combat bi di woo waa Gounass ma di sant président Mamour di sant waaw yàlla baax na nag suñu borom moom bëri na sutura waaw. jaajëf mu ñaanal suñu borom defal ko jàmm. kii mu ne ma gaaw kii mu ne ma gaaw sama seef et tëgal.